أعوذ بالله من ميلي لغير رداء ومن خلكم ترانسبورت Xelkom transport di kuréel gu taxaw temm ci askan wi di dem ak a dikk ca na mu gën a selle looloo waral wutal nañu leen ay daamaar yu mucc ayib confortable légal taaru am sécurité xew moo mën a am ak foo mën a jëm ci biir dëkk bi wala biir réew mi màggal gàmm céet wala ngénte dañ laa tudde bis ngay def délégation ana ndayale yi ana jàngkati xasida yi ñoo moom oto bi lii gën a neex fukki place mën a jël bagage da ngaa bëgg lenn ci jeexiti borom Touba da ngay dem Njaareem wala Poroxaan Xuru Mbàkke Mbàkke naawel ceyeen jola fu mën a doon waaw waaw roy du niroog piir oto yaa ngoog xelkoom transport ka koy dawal ndongal xelkoom sëriñ Saliou Kanji bismillah dem jàmm dikk jàmm xelkoom transport oto bi daal jàngkat yi kuréelu xasida yi ñiy dem ak a dikk ñiy siyaara ji ak fu ñu mën a jëm ci biir dëkk bi wala biir réew mi da bëgg ay leeral jokkool ak ñun ci numéro téléphone bi 77 682 95 51 wala 76 879 60 05 Xelcom transport mooy ñaanal Serigne Mountakha Bassirou mu yàgg fi lool te ànd ak wér ak Xelcom transport da ngay dem jàmm dikk jàmm te ànd ak dal